waa ala alihi wa sahbi assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre sœur Sokhna Adja Aïda ensemble autour de cette parole du prophète Mohammed paix et salut sur lui la religion c'est le conseil sincère Envers qui lui demanda-t-on? Il dit envers Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, son Coran, envers les autorités musulmanes et toute la communauté des croyants. mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi nu wërsëgal nu daje ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ne ad diinu nasiha mu ne diine laayante biir la qul naa liman ya rasulallah nu laaj ka ni ka kan la ñuy laaye biir yow yow yonent bi sallallahu alayhi mu ne lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimmati almuslimina wa ammatihim mu ne pour yàlla téereem bi di alquran yonentam bi ci lañuy laaye biir bir biir njiitu jullit ñi waaye laaye biir bépp jullit ordinaire ami auditeur le premier nasiha est pour moi pour ces propos que vous allez réentendre et que je vous ai tenus à la fin de l'année 2017 début 2018 Voici ces paroles. Ce qui fait dire cette absence de abadan fait dire au savants que la durée de vie de l'enfer est elle-même limitée. Un jour dont Dieu seul sait quand tous les damnés sans exception sortiront de l'enfer. Il n'y aura plus personne dans le châtiment de l'enfer et l'enfer fermera ses portes à jamais. Rediffusé en fin 2022, nos frères Ibrahima Sadi, journaliste émérite, Saïd Mamadou Niang à Dakar et Saïd Mouhamadou Diaby à Tamba, des frères attentifs et sincères, me demandèrent de leur éclaircir, car ce passage brouille leur compréhension qui était que l'enfer est éternel et ne finira jamais mbokk bi ñu tegaate waxtaan bi ci atum deux mille vingt deux suñuy mbokk yu xarañ déglu ko bokk na ci sunu mbokk Ibrahima Sadi di journaliste bu mag sunu mbokk Mamadou Niang dëkke Dakar sunu mbokk Mahamadou jaabi dëkke tàmba mu jaaxal leen ñu ni nañu leen leeralaat ndax daal safara tëj dàkk ñoom xamuñu loolu amis auditeurs ce sont les gens du Kalam dont je ne vais pas détailler les différentes euh, parties qui ont développé cette conception qui diffère naturellement de la conception de Ahlus Sunna wal pour qui, après le le jugement dernier, il n'y aura que trois catégories d'hommes, trois possibilités dans la vie future bokk yi gis-gis bi gis-gisu ahlul kalaam la kuréel lañu yoo xam ni seen xel la ñuy demee seen euh, gis-gis wuute na ak gis-gisu ahlu sunna wal ahlu sunna wal jamaa li ñu jàpp mooy bu yàlla attee jaam ñi ba noppi ñetti kuréel moo fi nekk ñetti mbir rekk moo mën a am premièrement les croyants qui entrent directement au paradis et qui demeurent au paradis éternellement c'est ce que dit le verset 108 sourate Hud quant aux bienheureux il dit les bienheureux Ils séjourneront éternellement au paradis tant que dureront les cieux et la terre. Une récompense éternelle, infinie, sauf décision de ton Seigneur. bokki bi ci njëkk ci kuréel yooyu mooy woy gëm yi nga xam ni dañuy dugg aljanna bu ñu attee ba pare rek ñu dugg fa béel mooy dootu ñu génn mukk loolu boo demee suratu Hud yàlla mu ne amma alladina suidu fa fi ljannati xaalidina fiha maa daamati samawatu wal ard illa ma shaa rabbuk mu ne ñi texe ñoom dañ leen di tàbbal aljanna ñu béel aljanna sax fa dàkk li fekk asamaanu aljanna suufu aljanna ngi am lu dul li sob sa boroom waaye mu teg ci ataan gayra majzuz may la payor la goo xam ne du dakk mukk La deuxième catégorie, ce sont les associat les associateurs, les polythéistes, qui entrent directement en enfer, où ils demeureront éternellement, d'où ils ne sortiront jamais. Les versets 36-37 sur la table le disent. Quand bien même les mécréants, il dit les mécréants, posséderaient toutes les richesses du monde et même deux fois plus pour les donner le jour du jugement afin d'échapper au châtiment, on ne l'acceptera pas. Ils subiront une punition sévère. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils ne le pourront pas, car leur supplice est éternel et infini. ok ñaareel bi mooy ñiy bokkaale ak yàlla ñoo ñoom bu ñu àttee ba pare rek directement ñoom it safara lañ jëm duñu ko génnati ba mukk ilal abad boo demee suratul maida mu ne lazina kafaru ñi weddi seen borom law anna lahum ma fi l ardi jamian wa mithlahu maahu li yaftadu min azabi yawmi alqiyaama ma tuqubila minhum yàlla mu ne yéeféer yi buñ leen attee ba pare dañu doon ngéejoo am moom lépp loo xam ne alal la ci àdduna ak lu ko raw ngir jot seen bopp ñu musal leen yàlla mu ne duñu ko nangu njot amul wala hum azabun alim dañ leen di mbugal mbugal gu metti yuriduna an yaxruju min an naar wa ma hum bi xaarijina minha danañu bëgg génn safara mais duñu ko génn mukk wala hum azabun muqim dañu leen di mbugal mbugal goo xam ni dafa sax dàkk du dagg ba mukk suratul maida laaye fanweer ak juróom ak juróom ñaar la troisième catégorie ce sont les croyants qui ont fait des péchés tels que ils doivent séjourner en enfer pour une durée déterminée quand ils seront purifiés de leurs péchés ils sortiront de l'enfer pour aller au paradis mbokki ñetteel bi mooy ay way jullit ñoo xam ni def nañu ay bàkkaar bàkkaar yu tax yàlla tàbbal leen safara waaye ñoom seen dugguk safara du abadan dafay am àpp bu ñu demee ba nga xam ni fóot nañ leen ci seeni bàkkaar ba ñu set wecc ñu génne leen safara yóbbu leen aljanna sourate Hud verset 106 107 malheureux regarde il ne dit pas les il dit les malheureux lezina shaqo les malheureux ils entreront en enfer ils crieront de douleur ils sangloteront mais ils y resteront tant que dureront les cieux et la terre sauf décision de ton Seigneur ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut bokki suratu Hud moo ñu koy nettali mu ni fa amma alladina shaqaw xam nga fële lazina kafaru la waxoon fii mu ne ñi nga xam ni texee dinañ def nañu ay bakkaar fa fi naari lahum fiha dhafirun wa shahiq dañ leen di dugal safara ñu ngay yuuxu ñu ngay yikkat xaalidiina fiha maa daamati samawatu wal ard illa ma shaa rabbuk mu ne li fekk asamaan ak suufu safara nga fa lu dul li soob sa boroom ñi soob sa boroom mooy ñii nga xam ne gëm nañu yàlla waaye tàbbi nañu safara mu soob sa boroom mu génn leen inna rabbaka faalun lima yurid yàlla mooy aji def ji li mu nam li mu bëgg la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous raconte il dit après que les gens du paradis sont entrés au paradis et les gens de l'enfer en enfer Allah dira sortez de l'enfer toute personne qui a un atome de foi dans le cœur on les sortira alors de l'enfer leurs corps seront totalement carbonisés mbokk sallallahu alayhi wa ali nettalinu ko mu ni boo xamee ni bii dugal nañu waa aljanna aljanna dugal waa safara safara mu ne gannaaw loolu thumma yaqulu llahu taala yàlla dafay wax ni axriju man kaana fi qalbihi min xardal min imaanin mu ni génnee leen safara wi képp koo xam am na atom fépp ci ngëm ci wéetal yàlla fa yu fa yaxrujuun minha ñu génn bu ñu génnee nag ñu nga ñuul kukk ndax seen yaram ya lakk na ba mel na këriñ boobu fënëx ñu soob leen fii maayil xayaa dugal leen ci ndox ga ngay def mooy dund xadis bi gudd na waaye lii rek lañ ci soxla C'est ce que dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Dans cette parole, je sais qui est le dernier à sortir de l'enfer et qui est le dernier à entrer au paradis. C'est un homme qui sortira de l'enfer en se traînant, en rampant. Allah lui dit, subhanahu wa ta'ala, allez, entre au paradis. Et le dialogue se poursuit. Mbokk yi. yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ni inni alamu la alamu axira ahlil ard ahlil naari xurujan wa axira ahlil jannati duxulan xam naa kii mujj génn safara nga xam ne mooy mujj dugg aljanna mooy ñii mu la wax ne amoon nañu as pas-pas ci seeni xol mu ne waaye la joo xam ne yaxruju min an naar kabwan buy génn safara day day bérangu wala nga day xalangu wala day raam yàlla ni ka ishab fadxulil janna demal dugal aljanna waxtaan wa digganteem ak yàlla gudd na boo deful ndànk sax dina la reetaan loo tuuti télé ami auditeur l'enseignement du Coran et de la Sunna que l'enfer ne fermera jamais ses portes l'enfer sera éternel mais qu'il y a des personnes qui sortiront de l'enfer. Pour eux, l'enfer est fermé définitivement et à jamais. Ils n'y retourneront plus. Seigneur, ne nous punis pas à cause de nos oublis et de nos erreurs. mbokk yi lii la alquran jàngale lii la sunna jàngale ni safara day sax dàkk ni aljanna saxe dàkk diina abadan waaye waa aljanna duñu génn mukk waaye waa safara am na ñoo xam ne dinañu leen di génnee mooy ñi am ngëm nga xam ni seeni bàkkaar moo leen fa duwaloon mooy ñi nga xam ni bokkaale wu ñëwoon ak seen borom am maa ñi bokkaale yàlla subhaanahu wa taala ñooñu du génn safara mukk bon bu ñuy tëj safara kay ñu ngi koy tëj pour ña nga xam ni ñoo gëmoon yàlla subhaanahu wa su ko defee seen safara yooyu waa safara donn ka ñoom ñu donn aljanna yi waa safara yi rabbana la tuaxizna in nasina aw axtaan yow suma boroom ngelawaay lawaay bul ñu topp bu ñu fàttee walla bu ñu juume di dellu ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu ci woy dégg yi mën a topp loola yomb na boroom bi yàlla nanu ko defal الناس في الأكوان مصدر الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله La deuxième nasiha est pour nos guides religieux. tout le monde constate quand un accident de la circulation survient, quand une calamité survient, quand des gens décèdent dans des manifestations politiques et d'autres, nos guides s'empressent de donner des sommes consistantes aux familles éplorées, ce qu'on appelle ici des jahal yi ñaareelu laaye biir bi mu ngi jëm ci sunuy kilifay diine képp kenn seetlu na ni bu accident amee ci tëli bi wala xew-xewu politique am ay nit ñàkk ci seeni bakkan wala yeneen yu ni mel kilifay diine yi dañuy gaawantu daldi yebal délégation ñu gaawantu joxe alal ju bare jaxale ka ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ñàkk ay bakkan mais je n'entends jamais que tel guide religieux a envoyé une délégation réconforter la famille de ses disciples qui ont perdu la vie sur les routes en venant répondre à son appel ou en rendant de sa cérémonie sur son invitation peut-être que cela se fait, c'est jaxal, mais dans la discrétion et qu'il n'y pas de communication dessus bon waaye man man lay wax déggaguma ñu ne kilifa diine woote woon na ab xew nit ñay ñëw dee yoon wa wala ñuy wàññeeku dee ca yoon wa ñu yabale délégation yi ñu jubal ci kër ñi deele ñu joxe fa ay jaxal defal leen dégguma de mën na am am na waaye dañu koy def ci secret ak ci nëbbu kenn du ci communiquer comme niñ ciy communiquer ci yi ci des pourtant verset 215 sourate la vache nu dit il te demande qui ils doivent aider dis-leur votre aide est par ordre de priorité pour vos deux parents vos proches les orphelins les pauvres puis les voyageurs mais tout bienfait que vous accomplissez Allah l'apprécie mbokk yi suratu baqara wax nu pourtant mu ne yasaluunaka maasa yunfiqun laaj nañu la lu ñuy dépenser ak ci kan la ñu war a dépenser qul ma anfaqtum min xayr fa lil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil mu ne wax leen ni pour seen ñaari way jur ñooñoo jiitu ñi ci topp mooy seeni mbokki jege ñaale seeni mbokk yi ci topp mooy njirim yi ak way ñàkk yi ak doxandeem yi wa ma tafalu min xayr fa inna allaha bi alim waaye nag lu ngeen def ci lu baax bu génnee ñi it yàlla xam na ka te dana leen fay suratul baqara laaye ñaari téeméer fukk ak juróom ainsi amis auditeurs après les parents ce sont les proches al aqriba qui les parents de sang et les parents de foi notre famille spirituelle Seydi Aj Malik di min jihati tiin wa fi diini mbokk yi bu wayjur yi jàllee mbokk yi mbokk yi mbokk yi nag ñaar la dafa am mbokk deret am mbokku pas-pas Seydi Aj Malik mu mu mu tënk ka ca bayitam ba mu ne min jihati wa fi diini ñi nga xam dama bokk ak ñoom ci ban bi ñu nu tabaxe ak ñi nga xam dama bokk ak ñoom ci pas-pasu diine gëm la gëm sa yonent dès lors amis auditeurs nous ne devons pas snober nos frères dans la foi ceux avec qui nous partageons la même conviction religieuse ou frérique surtout quand c'est en répondant à notre invitation qu'ils sont éprouvés par un tel malheur mbokk yi bu fekkee ni nii la mbir waru ñu mel ni ku yëgul li dal ci suñuy mbokki pas-pas ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom diine walla ñu bokk ak ñoom tarixa wala ñu bokk ak ñoom association islamique rawatina nag bu fekkente ni ñun ñoo leen woowoon ñu nuy wuy si di ñëw wala ñuy dellu dog dal dab leen le verset 10 surat les croyants sont de véritables frères innamal mu'minuna ikhwa et la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui dit les croyants sont comme une seule personne une personne si elle se plaint d'un mal de tête tout son corps subit la fièvre et l'insomnie mbokk yi alquran wax na innamal mu'minuna ñoom dong booy xool ñooy mbokk suratu xujuraat laaya fukk ki gën ci ñi yàlla bind mu ni al mumin muminuun ka rajulin waahid mu ne jullit ñi mbooleem dañu mel ni benn jëm in ishtaka rasuhu rasahu tadaa lahu saayiru jasadihi bil xuma wa sahar mu ne boo xamee ni bii nit ki boppamay metti rekk boppam mu ni desitu yaramam yépp dafa koy jàppale ci tàng nelaw ya moom kenn waxatu ko day daal di seri ami auditeur nous aimerions que nos guides religieux mettent en pratique ces orientations théoriques ou bien leurs orientations théoriques et nu assistent nous leurs disciples sans discrimination de statut social ou de fortune qu'ils nous assistent simplement comme ils le font pour les manifestants et les accidentés de quelque bord que ce soit mbokk yi li ñuy sàkku ci suñuy kilifa rawatina suñuy kilifay diine mooy li ñuy li ñu nuy jàngal ñu koy jëfe jëfe ko ci taxawunu ñun ñi nga xam ni ñooy seeni taalibe bu ñu xool sunu ndombo wala sunu ñàkk ndombo ci askan wi bu ñu xool sunu alal wala sunu néew alal ci askan wi dañu taxawi rek ni ñu ko defee ci ñi nga xam ne ñu ngay xeex ci wàllu politique ba ñu nga ca mbedd ya di sànnente grenade wala ña nga xam ne ñi accident dab na leen ci tali bi wala ci géej gi wala ci jaww ji Seigneur ne nous impose pas d'autorité qui ne te craint pas et qui aucune pitié pour nous allahuma la tusallit alayna man la yaxaafuka wala yarhamuna yow yàlla ñu ngi lay ñaan bul nu teg ci keppaaru kilifteef goo xam ni gi ragalu la kilifa goo xam ni gi dunu yërëm defal nu nu nekk ci keppaaru kilifa gu mel ne yonent bi sallallahu wa ali di ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal شأنك الإنعام أن تبعث الله Notre troisième nasiha porte sur Laylatul Qadr, mais c'est surtout des orientations. Allah subhanahu wa ta'ala apprécie les efforts des croyants qui cherchent sa satisfaction. C'est pour créer l'émulation vers le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde secret certaines choses essentielles. Mbokk yi sunu ñetteelu nasiha mu ngi jëm ci laylatul qadri di fàttali sunu bopp di fàttali képp kenn ci ñun ni yàlla subhaanahu wa taala dafa koy neex mu gis way gëm boo xam ne mu ngi farlu di def lu mu mën ak lu mu mënul ngir dab ngërëmam loolu moo tax ngir mu may nit ñi ñu wujje ci lu baax mu nëbb ay mbir nëbb ay mbir les versets 5 sourate la table verset 148 sourate Baqara disent fastabiqul khayrat rivalisez d'efforts dans le bien voici amis auditeurs quelques-unes de ces choses cachées Allah subhanahu wa ta'ala a caché l'instant où les vœux sont agréés le jour du vendredi Il a caché la prière médiane parmi les prières. Il a caché le nom suprême, Ismoullah al-Azam, parmi les noms et attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a caché l'acte qui, qui le satisfait parmi les bonnes actions du croyant. Il a caché l'acte qui le mécontente parmi les mauvaises actions de ses créatures. Il a caché le wali, son, son partisan, son ami, parmi les croyants. Et il a caché l'heure du jugement parmi les heures, comme il a caché l'heure de la mort de chaque individu. C'est ainsi qu'il a caché Laylatul Qadri dans les nuits du Ramadan mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala dafay dafa nuy ñaax wujje ci lu baax fastabiqul xayraati mu ne jëkkalante leen yiw yi wax na ko suratul baqara laaya téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett wax ko suratul maida laaya juróom bokk na ci mbir yooyu mu nëbb mooy saatul ijaaba yawmul jumaa mooy waxtu wi nga xam ni ci bisu ajjuma ku ci ñaan yàlla mu nangu ko yàlla nëbb na ko ci biir ajjuma nëbb na salaatul wusta mooy julli googu ci biir julli yi juróom mu nëbb ismulaayil azam turam wu màgg woow nga xam ni ku ko xam loo ko ci ñaan mu may la boo ko ci wooyee mu wuyu la mu nëbb ko ci biiri turam mu nëbb itam ridallah fi taatihi mu ne jëf yi bu ko ni defee day am ngërëm la waaye am na jëf joo xam ni moom ku ko mënti def yàlla dana la gërëm mu ndëbb ko ci biir jëf yi na mu nëbbe xadabahu fi maasihi mu nëbb ci ñaawteef yi ñaawteef bi nga xam ni mooy jur meram di jur sànjam mu nëbb alwali fi lmuminin mu nëbb waliyullahi ci biir jullit ñi noonu la yàlla subhaanahu wa taala nëbbe majiu saa fi l kañ la bis di am kañ la àdduna di tukki yàlla nëbb ka ñépp xatta ajalul insaan kañ la nit ki di dee barewul ñu xam seen waxtu dee ni bis sàngam heure sàngam ci lay dee am na ñu ko yàlla nag subhaanahu wa di jagleel noona la yàlla subhaanahu wa taala nëbbe guddi gi di laylatul qadri ci biir guddi weeri koor la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous encourage à chercher Laylatul Qadr dans les nuits du dernier tiers du mois. Il dit les vingt-cinquième, vingt-septième, vingt-neuvième nuit mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali comme yàlla nëbb na ka xam nañ ni mu ngi ci biir weer wi mu ni iltamisuha fi l ashri l awaqir min ramadana mu ni mu ni seet leen ko ci fukki fan yu mujj yi ci ramadaan mu ni seet leen ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom yi la meilleure des créatures nous enseigne ainsi que laylatul qadr varie varie selon les années Ça peut être cette année le 25, la 25e nuit, l'année suivante la 29e, l'année suivante la 27e nuit. Aussi, les savants n'ont jamais cessé de faire des efforts pour identifier cette nuit bénie. mbokk yi lii bu ko yonentu sam waxee dañu ciy jàngate ni bon laylatul qadr du benn guddi rek goo xam ne at mu ne ci guddi googu lay ne bon mën na nekk at mi guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar at ma ca topp mu nekk ñaar fukk juróom-ñeent at ma ca topp mu nekk ñaar fukk ak juróom at ma ca topp mu nekk ñaar fukk ñett et le prophète alayhi salam ainsi que les savants surtout les savants on cherché certains ont multiplié les neuf lettres qui composent l'expression laylatul qadr par le nombre de fois que cette expression est répétée dans la sourate Al-Qadr, c'est-à-dire trois fois, trois fois neuf, vingt-sept. Et alors ils en déduisent que la laylatul qadri serait la vingt-septième nuit mbokk yi boroom xam-xam yi di farlu ñu daal di jël suratul qadr ñu xool laylatul qadr mu ngi am juróom-ñeenti araf kàddu gi di laylatul qadr yàlla wax na ñetti yoon ci saar bi ñu ne bon boo darbee juróom-ñeent ci ñett daf lay jox ñaar fukk ak juróom-ñaar bon laylatul qadr ñaar fukk ak juróom-ñaareelu guddi gila la pour d'autres dont Abdallah ibn Abbas Ubay ibn Kaab laylatul qadr serait la nuit du jour de la bataille de Badr ñeneen ni déedéet laylatul xadr kay te ñooña ci la Abdullah ibnu Abbas bokk Ubay ibnu Kaab ci la bokk ñu ne laylatul xadr moom mooy guddi xare Badar guddi googu ci la laylatul xadr am fukkeel ba ak juróom ñaar enfin amis auditeurs d'autres tenant compte des trente mots qui composent la sourate Al-Qadr disent que Laylatul Qadr est la vingt-septième nuit. Pourquoi sont-ils arrivés à cette conclusion? Parce que disent-ils le mot hiya hiya pour la quatrième fois Laylatul Qadr dans la sourate le vingt-septième mot. Donc cette place de vingt-sept indique que Laylatul la vingt-septième ñeneen daldi waññ baat yi nga xam ni moom la yàlla tëgge suratul xadr muy fanweeri baat ñu ni laylatul xadr yàlla wax na ko ñetti yoon ci laylatul xadr bu mujj ba hiya la ko waxe moom laylatul xadr hiya boobu nga xam ni mooy junj laylatul xadr ci ñeenteel bi yoon boo waññee palaasam dangay fekk moom mooy ñaar fukkeelu baat ak juróom ñaar ñu ne bon kat laylatul qadr mooy ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar ci guddi weeri koor yi d'autres enfin comme imam Abul Hasan al-Shazili considère le jour qui marque le début du Ramadan pour identifier Laylatul Qadr et ils ont sorti un tableau tableau auquel adore adhère Serigne Touba radiallahu taala anhu qui se réclame disciple de Abul Hasan Achazili mbokk yi boo demee da ngay fekk ku mel ni imaam Abul Hasan Achazili moom mu ni pour nga xam kañ la laylatul qadr da ngay xool ban bis la weeru koor tàmbali weeru koor bis bu mu tàmbali rek moo lay jox ban bis mooy laylatul qadr mu daal di tëgg benn tableau tableau boobu moom la Sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu moom topp ci buy làmbatu li nga xam ne mooy laylatul qadr imam Abul Hasan Achazili nous dit si le ramadan débute un dimanche laylatul qadr sera la nuit du 29 si c'est un lundi laylatul qadr est la nuit du 21 si c'est un mardi laylatul qadr sera la nuit du 27 si c'est c'est un mercredi laylatul qadr sera la nuit du 19 si c'est un jeudi laylatul qadr sera la nuit du 25 si c'est un vendredi yawmul jumu'a laylatul qadr sera la nuit du 17e jour si c'est un samedi enfin laylatul qadr sera la nuit du bokk yi lii la imaam Achazili wax mu ne bu fekkee weeru koor dafa tàmbali mul ahad bisu dimaas dibéer mu ne laylatul qadr ci ñaar fukkeel bi fan ak juróom-ñeent lay doon bu dee yowmul ithnayni di altine laylatul qadr dana nekk guddik ñaar fukk ak benn bu dee yowmu thulatha di talaata laylatul xadr day nekk guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar bu dee yowmul arbia muy ba laylatul qadr dana nekk guddi fukk ak juróom-ñeent bu dee yowmul xamis di alxemes laylatul qadr ba day nekk guddik ñaar fukk ak juróom bu dee yowmul jumua laylatul qadr dana nekk guddi fukk ak juróom-ñaar bu fekkee weeru koor dafa tàmbali bisu samedi nag laylatul qadr day nekk guddi ñaar fukk ak ñett ami auditeur À quelque différence près, d'autres inspirés ont proposé ce mode d'identification de Laylatul Qadr proche de ceux du tableau proposé par Imam Shazili. Ils disent, si c'est un lundi ou un vendredi que dé débute le Ramadan, Laylatul Qadr sera la nuit du 21 Yahib. Si c'est un dimanche et un mercredi, que commence le ramadan, Laylatul Qadr sera la nuit du 29 Tay. Si c'est un samedi, ce sera Baka, la nuit du 23. Si c'est un jeudi, ce sera Hay, la nuit du 25. Si c'est un mardi, ce sera Kabid ou la nuit du 27. mbokk yi am ñeneen ñu joxe tableau boo xam ne bi wuute na tuuti ak li imaamu Chazili wax ñoom dañu ni bu bu koor weeru koor tàmbalee altine wala ajjuma yaaxib mooy nekk laylatul qadr mooy guddi ñaar fukk ba ak benn bu dee dibeer la mooy dimanche walla àllarba la tàmbali moom weeru koor laylatul qadr dana nekk guddi ñaar fukk juróom-ñeent ñu tënk ko ci toy yi bu dee samedi la tàmbali muy aseer dinañu wax ni ñoom guddi laylatul xadr day nekk ñaar fukki fan ak ñett bu dee alxemes hay guddig ñaar fukk ak juróom lay doon bu dee talaata kaabit la muy ñaar fukk ak juróom ñaar ca la laylatul di taxaw des savants comme Ahmad Duruq Ibnul Arabi saahibu al futuhat wa gayrihima et d'autres on dit Laylatul Qadr sera forcément et toujours une nuit de vendredi dans les nuits impaires du dernier tiers du mois de Ramadan mbokk yi dem nga fekk ay borom xam-xam yu mel ne Ahmad Duruq euh, Ibnul Arabi Ibnul ak ñeneen ñu dul ñoom ñu ni laa tufaariqu laylatu jum'atin min awtaari axiri shahr ñu ne laylatul xadr moom guddi ajjuma lay doon ci fukki fan yu mujj yi ci weer wi du ko génn tous ces efforts sont plus que méritoires et tout ce que je viens de vous dire vous pouvez le trouver dans le tafsirul jalalayn mais la majorité de mutahaddithoun des savants du hadith préfèrent s'en tenir au de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et chercher Laylatul Qadr dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan, comme le leur a conseillé le prophète Muhammad, paix et salut sur lui mbokk yii ay ijtihaad la yoo xam ni benn bu ci nekk dafa am fayda waaye li lii ma la wax nag yii ma la wax yépp ci boroom xam-xam yi làmbaatu bi ñu làmbaatu laylatul qadr boo ko bëggee yaatal danga nga koy fekk ci tafsiru jalaalayni waaye ulamaawul xadis ñi nga xam ni ñoom ci xam-xamu xadis la seen xam-xam màcc ñoom dañu ni nañu yem rekk ci lu waxu yonent bi alayhi salaam dax wax ji leer na wér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 à toutes les époques de notre histoire a fait tant d'efforts, c'est pour les grâces infinies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette nuit bénie de Qadr. Sache que nous pouvons avoir ces grâces au quotidien, car les anges de la miséricorde peuvent descendre sur nous toutes les nuits et toutes les journées, mais à certaines conditions. Bokk yi su fekkee umma bi rawatina borom xam-xam yi jamono bu ne ñu ngi farlu di làmbaatu laylatul qadr mais mooy ngir yiw yi ci borom bi làq yiw yooyu nag ñu lay fàttali ni mën nañu koy am bis bu ne bu bu bu ñu farloo sunu bis bu ne day nekk laylatul xadr sunu guddi gu ne day day nekk laylatul xadr su fekkee sart yi yàlla wax matal nañu les versets 30 31 sourate Fussilat disent ceux qui déclarent qu'Allah seul est notre Seigneur et restent fermes dans la droiture les anges descendront sur eux avec cette garantie ne craignez rien ne vous stressez pas réjouissez-vous du paradis qui vous est promis Nous sommes votre soutien dans ce monde et dans de delà Donc les conditions sont la foi sincère et le istiqaama mbokk yi suratu fussilat wax mu ne inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaayika mu ne ñi nga xam ni wax nañ ni yàlla rek la ñu gëm mooy suñu boroom ba pare sax ci njub mu ne ñooñu malaaka yi saa su ne dañuy wàcc ci ñoom gis nga guddi laylatul xadr dañuy wàcc waaye fii moom ci ñoom dañuy wàcc guddi gune waxtu wu nan leen allah taxaafu wala tahzanu bu leen tiit bu leen jaaxle abshiru bil jannati lati kuntum tuadun bég leen ndax yéen aljanna ji ñu leen dég dangeen ci ciy tabbi dangeen ngeen ciy jot nahnu awliyaukum fi lxayaati dunya wa fi laaxira nun nag nooy seen àndandoo di seen parandoo di seen péete adduna bi ak alaxira suratu Fussilat amis auditeurs le prophète alayhi salam conseilla à Sayyidatuna Aïcha invocation dit Seigneur tu es pardonneur tu aimes pardonner pardonne-moi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yonent bi sallallahu alayhi wa ali ba ka Sayyidatuna Aïcha laajee mu ne ka dil ñaan nga ne allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bon guddi laylatul xadr ñaan ci lii ni ko yow yàlla yow yaay aji baalaakoon ji yow jéggale dafa la neex bon yàlla jéggal ma amis auditeurs on peut aussi faire cette invocation comme suit on commence par faire huit rakka sëlmal deux rakka salaam dans la première dans les deux premières rakka on récitera dans la première rakka al-Fatiha et sourate Kafirun dans la deuxième rakka Fatiha sourate Ikhlas on fait le salam troisième rakka Fatiha sourate Zulzila quatrième rakka Fatiha sourate An-Nasr Iza jaa Nasrullah, on fait le salam. Dans la cinquième raka, on fait Fatiha et Ayatul Kursi. Dans la sixième, on fait Fatiha et Amana Rasoul. On fait le salam. Septième raka, on fait Fatiha et quarante et une fois Surat Falaq, Qul a'udhu bi rabbil Falaq. Et la huitième, on fait Fatiha quarante et une fois Surat Nas, Qul a'udhu rabbin Nas. Mbokk yi ñu defe ñaan gi nii jiital ay rakkay naafila juróom ñetti rakka rakk bu njëkk bi ñu def fatiya ak soratu kaafiruun qul yaal kaafiruun ñaareelu rakk bi fatiya ak soratul ixlaas qul allahu ahad sëlmal ñetteelu rakk bi fatiya ak zulzila iza zulzilatil ardu ñeenteelu rakkaa bi ñu def fatiha ak suratu nasr iza jaa nasrullah sëlmal juróomeelu rakkaa bi ñu def fatiha ak ayatul kursi juróom benneel bi ñu def fatiha amana rasul sëlmal juróom ñaareel bi ñu def fatiha ak ñeen fukki qul auzu bi rabbil falaqi ak benn juróom ñetteel bi ñu def fatiha ak ñeen fukki qul auzu bi rabbin naasi ak benn bu ñu paree naafile yi juróom-ñetti rakkaa ñu toog ci place bi walla mën nañu koy def di dox ñu def juróom-ñaari faatiya def astaghfirullah téeméer salaatu ala nabi ñaar fukk suratu inna anzalnaahu ñaar fukk ak juróom-ñaar daal wax nag allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni juróom-ñaar fukk def laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulk wa lahu kulli cheyin qadir téeméeri yoon teg ci rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azabannar juróom yoon thumma bu loolu wéyee nit ki ñaan yàlla ci xéewalu àdduna ak àllaaxira lu ko ci soob donc amis auditeurs après ces huit raka surérogatoires Oh, euh, c'est une prière qu'on fait la nuit de Laylatul Qadr ou la ou les nuits de Ramadan on fera Fatiha sept fois c'est un zikr astaghfirullah cent fois salatu ala nabi vingt fois suratul qadr inna anzalnahu vingt-sept fois et le doigt de sayyidatuna Aïcha allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni soixante-dix fois Puis la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu qadir fois. Ensuite rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar on demandera à Dieu subhanahu wa ta'ala parmi les biens de ce monde et de l'au-delà ce que nous désirons. Ñu ñaan Yàlla subhanahu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu li ñu koy ñaan fulka boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na ko defal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 wa alihi wa sahbi fi lakwan mustafa rahman anta fi lakwan mustafa rahman le message du Coran production de Radio Sénégal International, réalisée et présentée en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop.